semaine bu ñu jagleel lépp lu jëm ci mbirum entrepreneuriat ñu dippee ko semaine mondiale de l'entrepreneuriat bi nga xamante ni dañ cee nekk jamono juñ toll kuréel bi di ANPEJ yor lépp lu jëm ci li nga xamante ni moo di xëyu ndaw ñi jéem a fexe tamit gën a yembal lépp jëm ci mbirum xëy ak tamit promise nekk kuréel bi nga xamante ni moom mooy programme de développement de la microfinance au Sénégal moom tamit ñoom ñaar seq ak partenariat daal ak tamit ak collaboration ngir fexe li nga xamante ni moo di gën a jàppandal li nga xamante ni moom moo di wàllug emplois des jeunes bu ko defee rek li nga xamante ne moo di ndaw ñi tamit mën a bénéficier wu ak formation buñ ci jógee li nga xamante ne moo di mbirum xëy mi gën a mën a jàppandi eh, fii ci réewu Sénégal. waa li ko sabab mooy euh, xam nga ne ñu nekk ci nu ñuy wax sommet mondial de l'entrepreneuriat bu nga xam ne ci àdduna bi la donc euh, te état du Sénégal euh, mu am option entrepreneuriat parce que dañu seetlu ne. ñi nga xam ne dañu wut liggéey ak liggéey bi nga xam ne dafa am mooy structure publique yi ak privé yëpp ñu ñu joxe mënul jël en charge euh, ñëpp ñi nga xam ne dañuy wut liggéey donc état du Sénégal président de la République dafa dafa lancé un appel à l' entrepreneuriat auto entrepreneuriat euh, boo nga xam ne moom dañ koy développé mu ñëw nag mu méngoo ak ak ak ak semaine bi nga xam ne dañ koy fête ci àdduna bi donc mu nekkoon occasion pour ñun pour ñu nekk en contact ak les jeunes jeunes yoo xam ne dañu dañ leen sélectionné ñii ñu formé leen ci ay domaines yu bëri ñii wax ñu seen expérience yi nga xam ne dund nañ ko ci ci ci seen activité li nga xam ne moom la ñuy gàllan jot euh, ay gàllankoor ak li nga xamante surtout ci période bi moo tax ba seen activité nasaxaay donc ñu partagé ak ñoom mu am ñoo xamante ne d'ailleurs parce que ma ko fàtte wax ci français bi mu am ñoo xamante ne dañu dañu sax ci ak ci Covid bi sax la créer activité boo xam ne daf leen jural ay koom-koom donc mu nekk ne rek loo xam ne c'est pas du affaire bu totalement négatif mais vraiment mu nekk des moments de partage yoo xamante ne dëgg ngeen ko fii et d'ailleurs euh, je pense que jeunes yi suñu suñu suñu ñu bés si ñuy dëkk dañuy nekk pour ñun ay relais ay ay ay ambassadeurs pour wax li suñu structure di wax di def parce que lu bari nu ñu bari dañuy malgré communication yu def nu ñu bari dañ koy. dañuy am ay attitude mbaa ay ay préjugés xaw ma nañu ko waxee ci wolof en tout cas dañuy am ay xalaat yoo xam ne ci ci structure yu mel ni ANPEJ mais structure yi ñëpp lañ fi nekkal Sénégal nekkaluñ fi parti politique sénégalais yëpp lañ fi nekkal jeunes yëpp lañ fi nekkal dañu nekk foofu leen accompagner di leen di jàppale euh, pour ñu tekk laaj amul man gëw ma ne laaj dafa am parce que soo waxee day ñëpp dañuy laaj sa dépend li ngay dugal ci laaj yi soo waxee loolu bon réew àdduna yëpp ñoo laaj parce que man xaw ma dëkk boo xam ne mu ngi ci àdduna bi te amul chômage jeune xawma ko te dëkk yi gën a mag euh, chômage jeune yi dafa posé foofu problème c'est que tey sax question emploi moo posé problème d'abord en général ba pare chômage des jeunes en particulier parce que jeunes yi ñoo gën a bari surtout suñ dëkk yi nga xamante ne soo xoolee euh, gen wàllu nit ñi la mois moitié des gens nga teg ci dix euh, soixante pour cent ba soixante deux soixante cinq pour cent ay ndaw lañu soo xoolee euh, deux cent mille et quelques ñoo ñëw ci marché du travail soo xool ñeneen ñi am na pratiquement lu ko toll noonu mbaa lu toll noonu ñoo xam ne amuñu formation amuñu dara te dañu dañu mérité am liggéey parce que ay doomu ndaw mi la réew mi lañu égal dignité ak yow ak man mii donc état daf leen war a jël en problème yooyu lañuy jël en te problème yooyu ku la wax dafa yomb daf lay nax yombul yaa ngi dëgg ñu état nag mu ngi ciy def ay jéego yu bari parce que nag soo xool ñi nga xam ne jàng nañ ba seen jàng yeggul ak mbaa xam ne dem nañ ay université ba pare seen jàng méngoowul ak ak li nga xam ne moo nekk ci marché de travail état Sénégal indi na formation professionnel bu nga xamante ne tey soo xoolee bu ñu fiy ñëw au pouvoir 24 milliards lañ fi doon def tey 78 milliards lañ ci soo xoolee ni ñuy wax les apprenants ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ci ci euh, di jàng ci centre de formation yi 32 000 la woon aujourd'hui nous sommes à 80 80 000 et yaa ngi dégg donc ay jéego am na état Sénégal def na beneen disposition boo xam ne euh, alternance la boo xam ne xale yi 1000 jeunes ñu ngi ci yoo xam ne dañ leen di fey sax 40 000 par mois donc état bi mu ngi def ay jéego ba ba pare nag loolu c'est des politiques sectorielles parce que l'emploi du jeune ay c'est des politiques transversales emploi du jeune soo demee ministère de la femme am na am na emploi du jeune soo demee ministère de l' agriculture am na emploi jeune soo demee pratiquement dans tous les ministères am na volet jeune donc financement investissement bi état Sénégal def fena fu investissement bu macc ayib la bu bëri la mais nag mais nag c' est vrai toujours on a confronté au problème parce que aussi mooy li ma wax rek nit ñi bëri na euh, secteur privé bi ak secteur public bi li ñuy jël capacité secteur privé bi dafa tuuti ci du ñuy jël soo ko boolee ak euh, secteur privé public bi nga xam ne vocation du créer emploi lim ci li ñuy li ñu jël pay bariwul donc loolu moo indi difficulté bi te ñu ngi koy juguler. programme de développement de la microfinance au Sénégal yi dippee ko promise tamit ne kuréel bi nga xamante ne mi ngi feddali li nga xamante ne moo di àndandoom ak ANPEJ ngir gën a mën a daal xeex lépp lu jëm ci mbirum chômage jéem a fexe daal jàppale ndaw ñi lépp lu jëm ci mbirum formation ak wàllu ko tàggat daal ngir tamit li nga xamante ne moo di wàllu xëy wi gën a mën a yomb si li nga xamante ne moo ndaw ñu bëri yu yeewoo fii ci Sénégal. Euh, daje ak euh, collaboration bi ñu def ak ANPEJ ci semaine international de l' entrepreneuriat xam nga ni euh, comme euh, journée boo loo gis ñu jox ko semaine wala journée c' parce que dafa nekk problématique boo xamante ni du Sénégal rek àddina bi yëpp la soxal muy l' parce que dafa nekk loo xam ne dafa méngoo ak jamono. promise nekk organe boo xam ne état bi moo ko teg pour mu indi doxalin bu bees muy financement islamique. ANPEJ nekk organe boo xamante ni euh, état bi moo ko fi teg pour mu wël ci jeunes yi encadré leen si yoon bi nga xam ne moom lañ jël pour yaa ñu gis ne nag dañu war a ñun ñi nga xam ne ñun la ñu dénk organe yooyu ñu ànd pour mën a gën a jox ñi nga xam ne ñoo ko soxla euh, li nga xam ne moom la ñu bëgg te muy loo xam ne président de la république loolu la def muy problème mooy entrepreneur jeunes yi naka lay fexee ba jeune Sénégal ñu ñu ñu gën a gaaw a gis seen bopp euh, gaaw a mënal seen bopp parce que loolu la ku nekk bëgg alors man ñu ñëw tey ànd ak euh, waa ANPEJ ANPEJ ak Promise ci partenariat bi pour ñëw indil euh, jeunes yi ay formation won leen naka la entrepreneuriat entrepreneur d'abord il foog nga def entre nekk entrepreneur ba pare doo ko nekk def entrepreneuriat alors entrepreneur nag état d'esprit la donc état d'esprit bi mooy d'abord gëm sa bopp gëm fi nga jëm et puis gëm li nga bëgg a def donc loolu nag dafa laaj am na si loo xam nag nit ñi dañ koy am naturellement muy don mais am na loo xam ne nag da koy acquérir naan lakk yi donc ñun dañ ñëwoon tey ci li nga xam ne mooy yi maanaam ay formation ay jumtukaay yoo xam ne ay boromi xam-xam ñooy ñëw wax ak ñoom pour ne leen nii ak nii ak nii la nii ngeen di saytoo ak ñi ngeen defee ñu am ci mbégte lool nag. ndax euh, xale yi wax dëgg yàlla def nañ ay témoignages yu yu dal xel yu wane nii lañ leen doon jox euh, jël nañ ko comprendre nañ ko nangu nañ ne woon nañ ko te dinañ ko jëfee ci loo xamante ni luy jëmale Sénégal kanam. ñaari kuréel yi tamit si seen biir waxtaan ak seen biir xaatim taxaw nañu temm tamit ngir fexe ñaaxaat li nga xamante ne moom moo di askan bi rawatina ndaw ñi ñu gën a bàyyi xel ci mbirum immigration clandestine ñu ñi ngeen di soññ bu baax a baax ñu gën a toog ci réew mi rek ndaxte li nga xamante moo di toog Sénégal ak tamit tekk fi lu mën a nekk la. waaw nga gis ay jeunes lu toll si ay téeméer yu bëri euh, ñeenti téeméeri jeunes ak lu topp vraiment ñàkk seen bakkan pour ne dañu yaakaar leneen feneen wax dëgg yàlla loolu nekk na lu ñu metti ñun ñëpp en tant que yaay en tant que mag en tant que euh, tant vraiment metti nañu ah, ñu bëgg wax jeunes yi rek ne euh, nit ku nekk na nga jàpp si li la yàlla sédd ah ña ñuy fekki fële ñu ngi yor problème yoo xam ne moo ëpp foofu naxe mbaay nag daf la naan solution bi fee la nekk alors que solution mi ngi say bët ndax loo paree def fee boo ko paree def ci sa réew rek non seulement di nga ci am sa ngërëm bopp am ci say ngërëmu mbokk am si ngërëmu yàlla kon nañu gën a gëm nañu gëm suñu réew xam ne euh, comme ni ma ko waxee sànq euh, sëñ Fallou Mbacke da wax naan lu ñu defar mu baax donc nañu defar suñu réew ndax ñu ñoo ko war a defaral suñu bopp euh, di leen ñaan rek ñu gën a gëm am yaakaar ci seen réew jërëjëf. ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, loro yaay ci boobile euh, formation daal dañu am ñi nga xamante ni moo di suivi maanaam dañ leen toppatoo ngir tamit li nga xamante ni moo jëm seen wàllu ko njàng ak seen wàllu ko formation a gën a jàppandi ANPEJ ak Promise ñaar kuréel yi fas yéene nañu taxawu temm ngir boole seen kattan seen mën-mën ak seen doole ngir gën a mën a yombalal li nga xamante ne moo di wàllu ko xëy mi ngir jéem a fexe tamit tàggat ndaw ñi ci wàllu ko formation ak ci wàllu xam-xam rek bu ko defee li nga xamante ne moo di mbirum xëy mi gën a mën a jàppandi ci réewu Sénégal.